maa ngi leen di jox rendez-vous yéen ñëpp samedi ci guddi bu kenn nelaw yéen ñëpp damay def ak yéen direct boo xam ne ñëpp laay dugal ci ligne bi. Modou Lo ngeen di topp. Seydou Kocc Barma ngay wax rek am na lu muy waxati de lan lay wax. Kocc Barma ngay wax am na lu muy waxati de allo. waaw waaw. dama ne Ama na na ak nelam boobu noonu na xaar rek mu dina ko daan ba konko ah loolu sa bëgg-bëgg la dama koy bàyyi ñuy seetaan ñu xool ñu jugé. incha kon ma jël ma ma. nan pause après tout Seydou Coow lan la coowali coowal lan la seedu Coow ay wax a fi de lan la. Seydou ay coow nga fi lu xew lu xew mbaa jàmm ñoom ñu waaye dañoo am coow seen biir Kocc Barma Kocc Barma ngay aalu lan la Kocc Barma ngay aalu de Kocc Barma ngay aalu de lu xew. Kocc Barma ngay. allo allo allo waaw. allo allo waaw noo tudd ak fooy wootee. ana waa Canada. waa fan si Modou ngeen wala fan si Ama Balde. ñun ñun ngeen di topp Ama nee pare na de. ah sa bëgg-bëgg nga wax de ana waa Canada. waa nu ngeen gisee Dakar Buzz. ah Dakar Buzz waaw ñun mooy yéen bu mag bi de ku bëgg direct bi leer jàppal Dakar Buzz. li ngeen bëgg ci maa leen koy jox. waaw. lan ngay wax ci non violence loo ciy woote ci non violence. waaw affaire bi nag na waa Pikine woote fair yëpp ngay woote woo ci non woo waa Parcelles ci non violence. ah xam naa la boo waxee dañ lay déglu wootee rek. daan ah. ah, baax na loolu dina leer bu dimanche dimanche soreetul. yàggatul incha allah. yàlla nañu yàlla may fekke nuyul ma waa Canada yëpp. maa ngi nuyu waa Canada yëpp Canada dama fa bari ay ay xarit bëri fa am fa ay frère am fa ay yaay am fa ay sœur ah Canada xam nga ne dëkk la boo xam ne maa ngi da ngeen ma nag bëgg naa ñëw Canada. waaw problème loolu bàyyi na ak sa loxo. maag Seydou nag. amul benn sama camarade bi ñooy ànd fu jëm ñooy ànd maag moom. kon baax na kon kon kon nga nuyu waa Sénégal ko nuyu sa yaay wala sa papa wala sa jabar. fan nga dëkk ci Dakar. man parcelle laa ban unité. unité douze foofu si côté Modou noonu. ah waaw unité dix ak unité unité dix unité douze de sorewul. unité douze bi noonu wax nga dëgg. yàlla baax na kon nuyul ma waa Canada yëpp. jërëjëf kontaan naa ci yow. Seydou maa ngi nuyu waa Canada Seydou préparé dañuy dem Canada maa yow maa yow dañuy dem Canada Seydou waa mbooloo maa ngi gën di bari de bu mbooloo ma ma léegi si